jërë ngeen jëf sunu mbokku téléspectateurs yi lecteurs yi auditeurs yi ñuy bàyyi xel ci télévision mag bi di Mouride TV rawatina sunu mbokku internet yi li ci biir suñu gan tey moo di Cheikh Abdou Lo saahibu ridaay Cheikh Abdou ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar. waa asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu Serigne Koso ñoo ngi lay nuyu di la ziar bu baax. te di baalu mboolem Sénégalais yëpp. di wax ni fépp fu ab julli di ne ñu ngi leen nuyu di leen ziar bu baax di ziare mboolem ñi nga xam ne ñoo ngeen nekk ci. fii nga xam ne mooy Tuubaal Maharosa dëkkub si Ahmad Bamba Xaadim Rasul ñu ngi siyaare ñëpp mboolem ñi fi nekk di siyaare xalifa général bi Murit Serigne Muntaxa Basiru Mbàkke yàlla yàggal ko fi ak yarakam yëpp jërëjëf Cheikh Abdoulaye saahibu ridaay di sunu gantey ci li ci biir Cheikh Abdoulaye nag ma fàttaliwaat ne doomu soxna la ndax moom ak amintaloo jaam yi ay mag ak rakk lañ yaakaar naa soxna amintaloo mooy sa mag waaw loolu am na sëriñ koso ndax soxna amintaloo mag la ci man mm-hmm. di sama mag di féete goo xam ni àddina sépp xam nañu ko bëggal ma boppam def ma ni boppam boole ma ci boppam mm-hmm. dëkk bii di tuubaa Almahrousa du fi ñëw mukk te du ma woo téléphone fu muy jëm ci kilifa diine yi Touba yi ñooy ànd même fu muy jëm ci biir dëkk bi ñooy ànd ñooy nekkandoo ba keroog muy dellu ndakaaru man tamit bu ma demee ndakaar këram lay nekk kon kooku bu amee lu mel nii dal ko wax dëgg yàlla lenn rek laa mën a def mooy sàkku ndimbal ci ñi nga xam ni ñooy taxawu diine lislaam ji nga xam ni ñooy taxawu ñoo nekkal yàlla ci kaw suuf de xalifatullaahi fil ardi yi nga xam ne ñoo nekkal yàlla ci kaw suuf ñuy sàkku ci ñoom ñu wax ak njiitu réew mi moo wàcce loxoom xam ne aminta rakkam la ndax waxuma la rek séq kook aminta rek waaye da koo séq ak bàyyi aminta loo ndax seen diggante waxuñu la sax makki Sall waaye yàgg gi mu yàgg ak bàyyi Aminta Lo Ahmaduna Lo ñëpp xam nañu ko. Aminta doon na nit koo xam ni sa rakk la sa lépp la te dëggante ma gëj gi mën naa nekk waaye hmm. xolam ak seen xol yi dëppoo na ndax yéen kuy ci gisee yéen ñaar faw ngeen fàttaliku démb waxtaan. comme lu mën a xew ci àddina doomu aadama mën naa matadi ndax yàlla moo ko bind euh, matul. Hmm. kon bu yàlla dogalee couvre-feu am mu toog. doomam ci jëmmam xiif war a jàngi suba mu ànd ak moom di ko wutale reer bi mu demee ci yoon bi ñu téye ko euh, bi ñu ko téye mu wax leen ni leen man am naa kayit boo xam ni wane na ni war naa mën a dox guddi ñu ni ko d'accorduñ ci wëlbati ko téye ko ba mu fanaan fa ba 5 heures du matin après mu daal di delluwaat këram toog ñu xëy wax ko ni ko faw ñu jël siwaat la ndax dangaa wax ak njiitu réew mi wax yu teggi ne wut

autorité la comme ni ko président Sall doone ndax lu bon bon liggéeyal na réewam ay atiat koo xam ne yor na tourisme yor porte parole gouvernement yor Sénégal l'extérieur yor solidarité nationale kooku donatu ci réew mi benn forain rek dafa doon ci réew mi kilifa goo xam ne lépp lu muy def rek da ko teg ci xam-xamam ak ci ñàngam kon bu demee ba def lu demee noonu rek président war naa xam ni aminta fi ko def dafa xam ne bokkut ak koo xam ne war naa mën a def comme comme ñëpp ndax autorité la. Mhm. autorité la comme ñëpp ndax màggalu Tuubaa gii bu ñëwee dama daan gis fu ko neex lay dugub kenn du ko téye. Mhm. te tamit yàgg naa gis tamit maanaam kufur fa toxul rek moom rek moom daan dox guddi daan na ko def defati ko. Mhm. daan ci génn. comme lii bu demee rek da ngay doo xam dëgg-dëgg la ko waral ndax daal jamono kufur fa am na ci réew mi ba tàyyi. amin te ànd ak doomam. jëndali ko reer ci guddi gi ñëw toog. surtout man mi da nga japp ne amono autorisation. amoon nako ko. Mhm. waaw ndax aminta moom doon na koo xam ni na ba denc ak rer mhm. ta ko xam sat rew mi la ta ko warmal president la ndax président bo ko xamni yow yena yarondo yena magando avant ministre di am am jang de nga ko nekkon ak président Sall nekkando ko kusin bi makki Sall njëkk sol. Mhm. aminta lo bokk na ci ko moko jënd. waaw. Aminta ni mu mel président ni mu mel président mën naa ni sax kenn ko ko mel moom amul ndax yàgg nañ ay xarit lañu yoo xam ni laata ñuy nekk ci ngurug Macky ngurug Ablaye Wade lañ doonoon ay xarit booba am ah, ba ba mi leen ah, ah, kii fale ba ni leen Ablaye Wade fale hmm. Idrissa Seck booba moo doon premier ministre Ablaye Wade hmm. waaye relation bi nga xamee ne eh, Macky am na ko Aminta sax ami ko woon ak benn ku ne ci état bi hmm. waaw ñett ñi moom kenn daawu leen tàqale ko guddeeg bëccëg ñoo daan bokk fu ñu daan ne Madické Niang Aminata Lo maanaam président Sall lu fanaan dañ daan li wax ñetti doomi penn daar yi hmm. li fanaan ci kii yendu ci ki président Macky eh, président Abdoulaye Wade sax xamoon na seen diggante ñoom ñaar ndax xam gum ko xamoon moo taxoon ñoom ñaar lu muy waxandoo rek danaan bu ko ci kenn yëgee rek ñoom ñett ñoom ñoom ñett ñëpp yëg ko kon Aminta ak Madické ak président Sall ay jamono kenn lañu woon doonu woon ñaar kon nag pouvoir yi bu amee ak régime yi Sénégal yi ni muy doxee nga fàttali ko sa nit yi démb xam ne yi dawal yërmande ak di def action tamit baax na ci ndax Aminta président Aminta rakam la mm-hmm. ba pare tamit ab jigéen a ma mm-hmm. lu war mën a def rek war na ko xool ci euh, kóllëre goo xam ne amoon nañ ko ak lignement yu leen boole woon mm-hmm. te xam ne Aminta lu mu ko wax moo ko war a wax loo xam ne wax ko ko wax koo xam ne yow da ngaa war a jàpp ci loxoom yow même bu la état bëriwutoon sax mu bëgg liggéey wala mu bëgg dara yaa war a jàpp ci loxoom dimbali ko. Mm. wala benn président ak ku fi mën a nekk yaa war a mën a jàpp ci loxol kooko dimbali ko kooku yaakaar naa waroo koo xañ dara ba ñu di ko téye. danga nga jàpp ne politique moo leen boole. non seen diggante ñoom ñaar dafa jiitu politique. Mm. Abinta président Sall ñëw na kër papam ba tàyyi muy doon kóllëre gu sax goo xam ni dañ daan wax ay maga rakk lañ Abdoulaye xamoon na diggante bi. Euh, Aminata ak mm-hmm. président Sall kon président Sall moom na dawal yërmande xam ni kat réew mi réew mi yërmande la réewum teraanga la ndax réew mi boo xoolee fi mu toll nii jamono ji ni mu méttee nii képp koo xam ni téye nga ko rek sonal nga ko mm-hmm. sonal ay bokkam mm-hmm. te président xam nañ ci yow dingite joo xam ni xoo mën nag dëgg-dëgg état ndax état dafa sensible waaye yow sa jëmm rek rey melentaan sax doo ko def sàkkaat tamit nga jël doomu aadama di ko tëj état nag moom dafa bari doole ndax dafa am ay sensibilité am ay mbiram mm. yoo xam ni moom moom moo ko xam waaye yow président Sall nettaral rek melentaan sax yow moom doo ko rey mais li ñu jaaxal euh, dañu dégg sa biir wax nga ne Aminata Lo bàyyi woon nañ ko ci 5 de matin ba mu ñibbi këram wax ji kon fan la ko waxee wax ji moom lañ wax ne keroog bi ñu téyee rakk ji moom lañ jël dañ dañoo téye rakkam dem mu di ko jëli nee la waxee wax wax loo xam ne waru ko wax président hmm. ci lañ ko téyewaat. moo ko arrêté moo ko ñu àndoon waaw moom ñu àndoon. muy rakkam Tafalo. Tafalo dafa mel ni moo ko aminta ñoo àndoon bi ñu leen àndoon waa bi leen mais nañu bàyyi aminta te Tafa. waaw léegi nag loolu la nga xam ne moo ko sabab. Hmm. xam nga dafa waxoon ne xale yi dañoo am problème. Hmm. te mu doon leen arrangé. xale bi tàngal loolu lañu wax bi mu tàngalee nag ci la ko gars yi téye. te ko téye waaw. aminta gis nañu ne bi muy nekkee ak Ablaye Wade Euh, xañ na temps boobu sax ñoo bokkoon fu ñu nekk man ak yow waaye aminte gis nañu ne dafa defal euh, àdduna lu rëy a rëy mm-hmm. mooy doon na jàppale ay rakkam mm-hmm. doon na jàppale waa Touba mm-hmm. doon na jàppale sëriñ yi gis nañu sax ay ay famille ñu bëri bëri jàppale leen mais euh, gis nañu ne jamono ji dégguñ kenn génn wax waa maanaam xam nga ñun ñi nga xam ne ñoo féete Touba di famille dañuy tënku ci ndigal ñun nag dañoo doon loo koo xam ni duñu wax lu sartoog loo xam ni dañuy wax loo xam ni njiitu réew wax ju ñaaw la joo xam ne boo ko déggee loolu ñun duñ ko def ndax xam nañ président Sall taxawaayam ci ci askan wi waaye nag ñi ngi koy ñaan mu defar yërmande xam ni nit la aminte nit la koo xam ni mboolem lépp loo xam ne mos ko am bokk na ko ki bokkam mm. bi mu yoree nationale kab yoo xar yi mu daan yor ak kii bi yëpp da ko daan di ko tas ci kilifa diine yi buy amee ceeb màggalu tubaab mu sàndaat jot wala gàmm mu tas ko ci ci ci kilifa diine yi wëlbati ko tamit fonk njabootu Serigne Touba gi amul genn kër gooy dugg ci kër Serigne Touba yi taamintu la amu fa wàccuwaay kon tey bu nekkee ci bërëb yooyu ci anam yooyu dañuy xam ne natt la ba suñ borom tuddoon ci moom ne ala kulli alin dana ci aw waaye ñu ngi sàkku ci nga xam ni kilifa diine yépp yi nga xam ne ñoo nekk Touba nekkaat ci yeneen régions yi ñu ñaan ki nga xam ne mooy njiitu réew mi mu doxal yërmande te xam ni kat yërmande rek moo am solo ndax yërëm mi action noyyi gi ngay noyyi sax suñ borom moom yërmande ci la koy doxal moom nit ki mën a dox ci ak ruwam te loolu lu ci wàlla mën a ndax yonente bi alayhi salaatu wasalaam ak sahaba yi yëpp ci yërmande moo tax wàcce hmm. Cheikhul Khadim mii nga xam ne sax bi nga xamee ni ay yéefar yi solo nañ ko ànd ak ñoom tubaab yi fu ne ñu jaar fa ak moom ba mu noppee da leen irham jami alwara yaa adiyan rada kon nag yërmande jooju moo sanc réew mi moo màgge réew mi waaye réew mi du pour toroxal nit du pour suufeel nit du pour doyadi nit nit dana juum nga ne ko ëllëg si biir nag boo ko defaatee daneen la teg ay daan bu ko defaatee nag nga xam ne kii nag dafa ñëw pour yàq la wala pour mu yàq sa ndigal wala mu foyee sa ndigal kon boobaa yoon daa di kii waaye ginnaaw benn suur la te am na ah président Sall na nga sa xel xam ni aminta du aminta démb du aminta tey sam aminta la loolu moom maa ngi koy leeral ñi àddina sépp xam ko aminta sam aminta la aminta sa nit la sa rakk la sa xarit la te tamit jàppale nga ko ba tàyyi ci diirum bi nga nekkee ci état bi joxoon nga ko bopp diggante boobu yàlla moo ko doxalutoon te xamoo tamit lu yàlla di doxalaat ëllëg kon nag président Sall joxaatal sa rakk loxo génnewaat ko fi mu nekk toog ak moom waxtaan ak moom nga war koo mën a yedd war koo mën a digal war koo mën a tere mooy bàyyi. Mhm. waaw gis nañu ne Aminta euh, alterné bi ñu jëm lay taxaw ci kanam neen dañ koy atte loolu it dafa mel ni beneen affaire la de. waaw ah, nee loolu wax nañu ko. Mhm. ne Aminta lundi bii di ñëw lañ koy atte mhm. waaye atte bi nga xam ne lañ ko war a atte képp koo xam ne doomu aadama nga rek muy atte bi yàlla muy atte bi nit muy danañ la mos a atte waaye nag dinañ ko laaj ni ko li nga def lan nga ci sabab ak lan nga ci jublu boobaa na dana wax ne nàngam ak nangam boobaa dana wax moom problème ni ndax borom jéej bi dana dana euh, dana kiyam dajam mm. dana xam dëgg-dëgg li responsabilité mm. lu tax mu def lii mm. waaye man li tax lu def lii man ci sama gis-gis man ak yaakaar ji ma ci am mooy maanaam njuumte la woo xam ni lam jàppoon ni loolu moo war a mën a am la moom la moo foog ni moo amul laay ne ñu ngi sàkku ci état bi di sàkku ci ministère de l'intérieur di sàkku ci xalifa central des mourides mu taxaw jàppalañu ci Aminta Lo génn fa mu nekk ndax du bërëbam mm. ndax xam ne Aminta doomi Sénégal la waaye nag Aminta doomi Touba la waaye Aminta doomi Bawol la waaye Aminta doomi région de Diourbel yëpp Aminta doomu Pikine la doomi Sénégal gi yëpp mm. kon Aminta bi mu doon ne Aminta amintaal na ñëpp ndax soxna Aminta Lo yaay Cheikh Moustapha Al Karim lañ ko tuddee mm. ba ko bàyyam di tuddee Cheikh Moustapha yaay soxna Aminta Lo euh, soxna Aminta Lo booba barke bii la ci bëggoon kon ma ngi taxawlu fi man Cheikh Abdoulaye Sahib Ridaay ma ngi taxawlu fi di ñaanal khalifatu am di tarixatil muridiya ak Serigne Sidi Mbacke mi nga xamne moy rakam di jeewrini yoonu murid di ñaanal nga xamne ne lo xaritam la talibem la lepp la di ñaanal Serigne danum Cheikh Abdoulaye Mbacke yalla yagal ko fi te wer yalla lafal ko ciat ba projet yim anal ci yoonu murid yep Cheikh Mamadou yalla yegal ko ci jam jërëjëf jërëjëf général mi ngi ñu fété won ci walu caméra bi kookoon mo doon sunu gan di Cheikh Abdoulaye saahibu ridaa yi ñu koy sant bu baax di ko gërëm di leen jox dox daje beneen yoon ak beneen invité jërë ngeen jëf